ndax da nga bokk ci ñu jàpp ni ils ga gagner du temps. parce que actuellement nii dafa bëgg di manipuler sénégalais yi. amul ay preuves nu mu toogee def déclaration publique ne woote waat une conférence de presse ne li may wax dara du ci dëgg loolu mooy dëgg mais depuis lors boo bëlee ñaata rassemblement la ci woote lan la tew gum ci loxo justice. lan lan lan amul dara boobu bële moom maam moo ngi ñëw mais tout le temps moom mooy non damay non damay déglu tout le li nga xamante moom mu nekk mais aussi mais dafa naan non dafa euh, euh, par exemple un citoyen koo mm-hmm. euh, xamante ne certes war na dem wuy ji et mu ñu bunkériser xam fi mu dëkk yëpp ba nga xamante ne moom mënul sa dox ay soxlam est-ce que vous trouvez c'est normal parce que c'est normal nga taxaw ci. non mais mais non dafa daal est rek nga ne leen ndaw ñi. mais mais waaw dafa nang nañ jël risque waaw dafa nang dafa mais mais dama ne est-ce moom ci li mu wax non dafa nang moom ci li mu wax tey mënu ma jox nit ñi demee nañ dem xeex ji na dem jàkkaarloo li nga xam ne les forces de défense. non waxul nañ leen jàkkaarloo nañ dem assaisis nañ dem nga xam moo nekk. mais da en kay. non ñoom ñoo chargé pour li nga xam moo nekk sécurité. mais parce que ñoom la bëgg a jaamaarloo. non mais boo joxee rendez-vous non dafa non da ngay déglu boo joxee nit ñi rendez ca palais de justice ne ñëw leen gunge ma te ba ngay wax yow kese yaa wax mais booy dem nga ne mbooloo moom mooy topp nga ne kooku jàmm la bëgg. d'accord léegi. te au moment où loolu mu ngi porté. amul droit amul il a le droit ne amul droit di wax loolu. amul droit wax ay ñooñam ak ay militants am nañu ko gunge. moom moo ne am na ay preuves. jàpp naa ne nit non non il faut que tu répondre les questions directement. non moom moo ne am na ay preuves jàpp naa ne boo yoree ay preuves soxla woo dem fenn soxla kenn ku lay accompagner.